maaleykum gay dañu ñëw ci problème bi nga xamante ni moom moo xew ci diggante Balla Gaye 2 ak Lac de Guiers Lac moom moo yore écurie Waalo Balla Gaye tamit moo yore écurie bi nga xamante si nii turandoo moom la yoroon mu dekk fa tey di ko doxal léegi nag problème bi nii la demee Balla Gaye dafa am komba ak Gris Bordeaux Lac woo ko téléphone ne ko jërul ngay dem ba Paris wala États-Unis wala foo mën a dem ñëwal ma dimbali la ñuy entraîner ba ni ngay daanee Gris Bordeaux Balla nag dafa génn def communication boo xam ne nii Sénégal yi rafetluwuñ ko Balla communication mooy sama vie privée soxlawuma ci kenn maanaam li ko lak proposé maanaam boog du ko def yaa ngi dégg moom yëfu privé mu lay def ak affaire am mën na doon tamit defit bi mu jógee ak Bombardier ñu bari laxaasu woon ci ay ñoom ñaa xarañ loo ak mu bu jeg ñëpp nekkoon ci biir mën naa am loolu la bëgg a jàngat xoolaat entourage am waaw Lac de Guiers nag defaat na vidéo daal di koy tontuwaat daan ne comme comme Balla noonu la ko gisee maa ngi koy ñaanal kon duma ma ci communiqué naa ko ñaanal rek yàlla may ko nam moom daal xawma lu xew nag ni ngeen gars yi daal rafetlu wun communication bu Balla Gaye 2